La Grande Table. La Grande Table, l'émission politique de Banlieue FM, reçoit ce samedi Bamba Paye, coordinateur communal de FSDBJ, secrétaire national chargé de la communication et de la presse. Nous sommes à quelques encablures des locales 2022. Près de 8 candidats déclarés pour la mairie de Saint-Louis. Les coalitions et les partis politiques se bousculent et affirment leur identité. C'est dans ce contexte que la Grande Table reçoit ce samedi 13 et bien sûr un des grands leaders de parti dans cette localité de Saint-Louis du Sénégal. Pamba Faye face à Sori Parakonate, ce sera à 16h autour de la Grande Table. Toutes les questions seront au cœur du débat. mbokk am mbégte delluwaat di leen ziar di leen nuyu ah, képp ko xam rek yaa ngi topp rajo bi ñu dippee Banlieue FM 98 ah, point 1 ñoo ngi Pikine tey jii nag ñu am mbégte bu rëy di ah, waajal jongante yi nga xam ni mooy élection locale fii si ñu am mbégte dajat dalal kii di Amadou Bamba Faye Amadou Bamba Faye nag mi ngi bokk si kuréel gii ñu dippee FSDBJ muy parti politique boo xam ni ki ko jiitee mooy Cheikh Bamba Dièye moom nag moo yor lépp lu jëm si wàllu communication bokk nag si bureau national bu FSDBJ yor fa tim lépp lu jëm si wàllu euh, communication wala presse dina si dellu si waat léegi bu fekkee ni jumuma Bamba fay maa ngi lay maa ngi lay fay monsieur Sérifara Konaté di am euh, mbégte trop ñëw ci plateau bi di grande table. Mm-hmm. jàkkaarloo ak euh, yow.

Euh, je leur dis justement que Domi Pikine Domi banlieue bi nga xamé né moy Pikine ma ngi leen nuyu di xamal euh, nit ku fajal té ginnaw dañu dëgmal ay échéance yo xamné nit ñi ci dina di ak lu muy wut. Hmm. na lu ngeen ci nit ngeen ko ci gor mais mu aussi hmm. élection fi bëri na ci ay promesses yoo xamee ne tey boo koy xool c'est du pipeau ngelaw rek ngay gis donc mu nekk ne comme si euh, li ñuy wax naan la promesse n'engage que ceux qui y croient euh, ñu bañ a nekkaat ci cycle naxante ak cycle di dem di dikk ak di wax loo xam ne daal ëllëg euh, bu ñu toogee à l'heure du bilan dañuy xool Pikine mu nekk luy dellu ginnaaw. ñu xool Pikine muy gën a taa ndox ñu xool ci a élément fort yoo xam éviter. wax nga dëgg naa ni loolu jotul woon daan si léegi euh, si euh, waxtaan bi nga xam ni euh, dina lëkkale pik daan wax si pikin daan si waaye tey jii sama laaj bu parti politique. dëgg ana ki Cheikh Bamba Dièye mi ngi Sénégal mi déjà ci li ñu préparation locale Nous ñu engagé wu ak euh, parti politique yu ci Sénégal lu mel ni ay Sénégal lu mel ay Pastef lu PUR lu mel ne lu PRP au lu mel ne euh, ay mouvance yu aussi ak ay parti yu pour ne citer que cela ñu toog daal nas. indi li nga xam ne mooy yeewu askan wi mu nekkoon nag ci loolu euh, durant ay temps yu bëri ànd ci ak ay naataangoom investiture yi jàll nañu fi waxtaan bi ñoom aussi ñu séq ko daal di jublu ci li nga xam ne mooy list yi ak recours yi ak li fi jot xew yëpp maanaam daal Cheikh Bamba Dièye bu ñu ko doon xool daal mi ngi ci biir dëkk bi di saytu li nga xam ne mooy deveniru partie bi. ànd ci ak waa coalition Yewwi Askan bi waaye fas yéene taxawal aussi li nga xam ne mooy local yi ci nu mu gën a baaxee ak nu mu gën a waree pour le parti. waa nar da doon xaar Cheikh Bamba Dièye mu jiite Yewwi Askan bi fii si Ndar. dafa mel ni moom Yewwi wi dañ ko mujj yeew loolu lay bon disons xam nga loolu daf may permettre juste ma revenir ci événement yi nu mu demee parce que dès l'instant que mu nekk signataire de la charte on ne s'attendait pas à ce que jamono di dox bañ koy mën a tëkkale ak beneen candidat parce que ci sama analyse bu gàtt rek je me dis que tey man bu ma nekkoon militant nekk fu mel ne Chor Sonko ne dafa bëgg nekk maire jàpp naa ne képp ku fa nekkoon war nga koo mën a bàyyi ndax xel mu rafet mu nekk maire pour deux raisons juste leader de parti national la am lu mu war a représenter ci gox bi. de la même façon bu tey bu ñu demoon à Dakar Khalifa Sall daal ne moom dafa bëgg mairie de Dakar xel dafa nangu te muy nekk lu logique que ñu baye Khalifa Sall bien que choisir mais pour donner l'exemple que les signataires de la charte les leaders de partis nationaux d'office je me dis que a jamono ba am kenn ku ci xëccoo keneen ku ci parti bu bokk ci biir Askan Wi ngir commune mu malheureusement ceci est arrivé à Saint-Louis on s'est retrouvé avec euh, deux candidats le candidat au Sénégal ne moom du et c'est assez malheureux, et je le répète encore une fois, que bien avant que même investiture yi parce que nous avons juste choix candidature nous investir ay médias dans les ay télé wax wax ju ñaaw yàq der xaste les def lobbying def ay manœuvres politiques politiciennes ba mujj gi bi à Dakar jotuñu xaar le verdict il s'est déclaré être le candidat de la coalition Askan malheureusement la décision de la commission de médiation et d'arbitrage ñëwul contre contrecarrer ko wala ñëwul dire li nga xamee ne moom moo donc à travers les manœuvres ak li autour de cela on s'est réveillé un jour et on a désigné le candidat de au Sénégal comme tête de liste majoritaire à Saint-Louis. Ah, d'après nos sources dafa vote de amoon. xam nga bu fekkee ne dañu wax ci li charte bi wax dafa demoon vote. non non amul woon vote parce que charte yi dafa ne Si ñu demee ci une localité s'il y a plusieurs candidats les PV nañ ko retransmettre juste wax na ne pour tel et tel et tel et tel poste les candidats ñi ngi nii diw ak diw ak diw la. Hmm. amul beneen luñ ñu leen laajoon consensus moo nekkoon di rigueur parce que xam nga vote bi li muy indi liñ ci doon bañ moo ñu dal tey moo dal localité yu bëri parce que kii di vote fait un choix te mënoo ak sa ay nit ngeen nekk une douzaine de partis tey bu fekkee dafa am ñaari nit ñu bëgg ñeneen nañu voté bu juróom féetee fii juróom benn féetee fee mais ku nekk xam nga say intention. même kii gagné mën na situer à peu près que ah juróom ñii de bu doon seen sago du ma mës a du ma leen mës jiite. te loolu day yàq ànd parce que au delà de ces investitures am na jóg dem ci gox yi am na liggéey am na remobiliser war la base ngeen war di ànd di gisante chaque jour. mu nekk nag loo xamee ne je pense que c'était pensé bien bien avant moo tax ñu ne woon du ñu dem ci vote consensus la démé demee su amul consensus on laissera juste le soin à la conférence des leaders bu yexé fofu ñu trancher bu boobaa ñom dinañ choisir qui est le candidat manœuvre yi am yépp nak derrière avec les PV yi ci bind lolu kenn sant ko kenn et c'est c'est c'est assez malheureux et le constat est là juste sur Saint-Louis rek ngay ñëw PV yi dem ñu bis ne ne ay pourcentage yenen PV yépp au niveau du Sénégal amul benn bu ci am pourcentage dañuy wax monsieur Sori Faré Konaté bëgg na Bamba Fay bëgg na ñom ñaar daal waxtaan nañ way ku nekk da nga maintenir sa position on laisse le son à la conférence des leaders mu trancher. leneen li ci am nag muy enseignement boo xam ne ni am na on a vu aussi de nos camarades yi nekk ci yeneen secteur comme lu mel ne Pikine Ouest était tête de liste pourtant mais ci diggante bi papam gañu mu dem ñu daal di koy gomé baré ko def ci benen candidat bu bu passif mm. on s'est retrouvé avec la même situation aussi à Matam partout dans le territoire mu melni and bi je pense que lañu wara xolaat and xoolaat Askan Wi les leaders ci lan lañu andé lolu ça pose le problème de de de de de de de ànd boo xam ne nii daal dafa war a nekk bu rafet mais buy mucc. parce que démarche amul cohérence dafa mel euh, Khalifa Sall ak Ousmane Sonko dañu lâché carrément fils de BJ ak Bamba parce que amna, ay amna na ay Kouba bas ay man su ko doon wax avec euh, la vérité de ton dama naan justement que Bamba mom mo jappé politique bi comme lo xamné ni mbir mu mbir mu mbir mu mbir mu rafet la mom à son niveau li muy xalaat c'est bien ni mu koy waxee tamit baax na trop mais en réalité bu demee ba ci biir ay nit on il se rend compte que justement gars yi c'est comme si ñoom voilà, il n'hésite pas à faire, à, donner des coups, à, manigancer, à manœuvrer pour juste ses intérêts. Et c'est la cause, c'est la raison pour laquelle, face à ce constat, on s'est dit que nous, on va battre campagne. la raison est simple. Tu verras euh, à, à, hmm. par exemple, à wakinam Nimzat, à Tcharoy, mu am ay euh, signataires de parti yoo xamee ne ñu ngi woon ci Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. mais bu ñu gisul seeni mbir ci bagage yi dañoo génn dem ànd ak ñeneen ñi leen sopp. Mm-hmm. tu verras un taxawu Sénégal génn def liste parallèle tu verras des des des des partisans du PASTEF. Mm-hmm. ne ñoom àndatuñu ak Yewwi Askan Wi génn dem ànd ak même wàllu Sénégal wàllu Sénégal la mouvance du PDS. on a vu même des des des des partis signataires dans Yewwi Askan Wi yu génn sax ànd ak benn bokk yaakaar. Mhm. donc pour dire que et puis nous ils n'étaient même pas ils ne sont pas obligés ñuy justifier mais quand c'est sans lui mu mel ne dañu dañu dañu dañu rayel nit mamam wala dafa am lo xamné ni kat dañ ko def te waruñu ko won def ils oublient forcément que les locaux dafa am ay dynamique dafa am ay enjeux Yenen yo xamné ni c'est pas national on aurait compris que mu nek ay élection présidentielle si le président donne un mot d'ordre mais nous dañ ko suivre parce que y candidat la candidat. et ça polarise le niveau national. est-ce que Bamba fait une erreur de calcul De temps qu'il y a quelques années derrière. Mhm. ànd taxaw bi nu de koy au Sénégal pour euh, occuper poste bi l'Assemblée nationale est-ce que du erreur mon defu ko ndax bu on a ak ba nationale c'est grâce à la coalition est-ce que du dafa togon di yaakaar ni c'est la même chose liggéey gars yi di wax di tubaab di wax bis repetita day amaat. su ma doon wax dama naan c'est grâce à Bamba que Khalifa am li mu am. parce que si au niveau de l'Assemblée parce que ñun ñoo waroon am possibilité dem aux élections législatives. Hmm. ko xam législative xam na ne am benn député wala ñaar yomb na parce que le plus-value le quotient du plus-value reste moo lay moo lay moo lay dimbali. moo tax ku présenté aux législatives tu as facilement un député. Nous, on s'est dit que Khalifa est en prison et pour répéter ces mots dafa a Khalifa dafay dund injustice parce que boudé une caisse noire yàgg naa am maire yi fi jall faut interroger wuñ kenn ci caisse noire donc buñ ko fait Khalifa disons-nous que nous mën nañu en danger je ne soutiens pas Khalifa mais je ne cautionne pas l'injustice lolu mutax mu mom fi ñu waroon présenter suñu liste fsd au législatif, législatives ñu dem dugg ci liste taxawu Sénégal parce que le calcul derrière était que c'est un candidat boo xam ne il était déjà en prison ku nekk prison moom xam naa ne mënul dimbali ku nekk ci biti donc ñun ñoo ko dimbali ndax ñun ñoo bàyyi suñu parti dem dugg ci liste taxaw Sénégal yokk leen doole ànd ci li nga xam ne mooy xeexu injustice boobu ñu teg de côté la politique xam na ne injustice boobu bu lawee képp ku ko xeeb suba mën na lakk kër picc lakkaale kër njugub loolu la ñu def bi loolu weesoo aussi dans les postes l'FSDBJ le FSDBJ a un seul député M. Cheikh Bamba On xaw le parti parce qu'on s'est dit que parti bu mel mine de rien s'il va aux élections il peut avoir 4-5 députés bu ñu liggéeyee liggéey bi ci war je pense plutôt qu'aujourd'hui, la leçon à tirer de cela c'est qu'il faut que nous nous recentrions recentrer autour de l'objectif de l'essentiel c'est qu'on a un parti bu war di dem ci ay élections di présenter ci échéance électorale bu ñëw pour être au moins présent sur le territoire national. À force de le faire, on aura au moins des représentants partout et que ci instant on noonu ku ñu dina et en ce sens parce que aussi les calculs tu verras dans la charte c'est assez biaisé dañuy ñëw d'emblée il y a des membres permanents permanents, permanents, faut que que qu'il y a des membres non permanents comme aux Nations Unies mm. Nous, c'est le pur Pastef taxawu et c'est pas fortuit que sur le territoire national ce sont ces trois parties non permanents. ñi ne des pas non permanents. lañu mo moo qui ci charte yi loolu ku nga xamé ne tay da nga bëgg je pense que il y a de ces termes yo xamné même tu le vois dans des assemblées bu PUR taxawee waa Pastef ak ñeneen waa taxaw Sénégal ils te disent que non non ñun ñoy majoritaire tout le temps donc il faut que ñenen ñeu top suñu ginnaaw. non dafa firndeel rek ni kon FSDBJ bokkul woon bi ñuy tabax yi waskan bi si si si si si si bien au contraire le le yewi Askan Wi bu muy soso mën naa wax ne ne li ci jiitu wala li ci njëkk ci idée Cheikh Bamba moo ko si dugal waaye mais xam nga nature nit la par exemple man fu ma ma mën gis sax idée jàmbur mu jaral ma ko njëkkante ko paternalisme boobu ma réclamé ko ak ki nga souvent je lui dis que politique bi ak bien que Talibé la ko du mais du nekk naan maa def lii maa maa maa maa maa indi mais c'est dans sa nature que tey lépp lu mu teg sax lu yuuxu mukk naan lii maa ko def mais ñun ñu nekk ak moom xam nañ lim ci représenté xam nañ lim ci joué te mën na mu wóor na ne initiateur bu wér la ci Yewwi Askan Wi. waaw léegi Yewwi Askan Wi yeew na leen côté boobu ngeen war a dellusiwaat seen dëkk présenter seen candidature ndax buñ ko fàttee cosaanu ndar ñoo ngi ko soog a dégg man de si li ma gëstu. Mhm. taarixu ndar ñoo ngi soog a dégg koo xam ne ancien maire la. Mhm. amoon envie wala mbokk répété fu nekk nii dafa bëgg de présenter votre candidature toog au dernier moment vous C'est C'est étonnant pourquoi FSDBJ, ne peut teg samp ndëndam si joŋante yi. parce que dès l'instant que la décision est tombée on s'est dit qu'il fallait que nous nous dajaloo on s'est réuni réunis avec la diaspora même ñëpp en visioconférence nous avons ñuy waxtaan li ci jiitu ci on va aux élections avec sous la bannière du FSDBJ. L'autre idée c'était... à ah, est-ce que mënuñu dem en coalition mais mënuñu nekk ci Yewwi Askan Wi di wut beneen coalition hmm. parce que idée yi fu nekk lay jógee mais le plus important c'est li nga que ne moo ëppoon ñi nga xamee ne ni ñoom ñoo ci àndoon que dañu wara jël suñu ay responsabilités dem sous la bannière de FSDBJ au local. biñu ko xolé ba xol xam nga lan mo nek problème mesure bi fi daano la. visioconférence conférence ñu ngi koy def euh, ay 13h 14h à 16h dépôt caution yi day jeex alors que nous on a déjà participé à yewi Askan Wi ci caution bi donc dañuy versé foofu dañu versé léegi diggante bi mu des que non matériel matériellement il nous fallait déjà 30 millions pour pour pour le département et la commune c'était 30 millions on s'est dit que techniquement suñ koy def c'est pas possible parce que balaa ñu koy réunir dans deux heures de temps yóbbu dem déposer caution soo ko wax yëpp dañuy obligé mel comme si dañuy def course avec la montre et que le danger c'était quoi on le fait mais on met, mettrait aussi à nu les les efforts yi yenen yeneen camarades yi def au sein de Yewwi Askan bi ci sen ay localités yi amna ci des réussites d'autres peu de réussites ñun nak échec lañu parce que Cheikh Bamba Dièye n'est pas choisi donc lolu c'est un cas mais est-ce que lolu rek war na mën tax ñun ñu bëgg génn ci génné ñoñu ñëpp ci coalition bo xamné ne ne am forme ci yenn localités yi ñom ñing ci ciy gis seen bopp pour ne pas être trop individualiste, donc on, leur, on s'est dit que non, ce serait bien que Cheikh Bamba Dièye nga bañ candidat ñu bañ forcer la chose. li nga li nga bëgg xam nañu ko ñun li bëgg lii la mais li fi tax taxaw teew lii la. Ah, li fi teew nag mooy. li fi li ci expliquer on a des camarades de parti qui étaient en pole position dans des localités dem sous la bannière de yewi Askan et ils sont partis pour gagner ce n'est pas que à Saint-Louis on n'a pas choisi Cheikh Bamba que dañu wara remettre tout en cause. non mais le niveau national mais bo au niveau local. le mhm. fait ni vous étiez à quelques heures ñu arrêté caution yi xana bu ngeen mënul 30 millions kay ngeen baye département bi ngeen dem commune xana 15 millions de toilettes xam nga loolu dafa am ay ay ay conséquences. amu leen 15 millions. c'est pas juste que moyens financiers yi la mais le temps matériel mais au-delà du temps matériel day nekk euh, prise en compte sunu yeneen camarades yi te ñoom aussi ñu am wàllu bu rëy ci biir FSDBJ. yeneen camarades mooy par exemple on va à Ourossogui on va à Pikine on va dans d'autres cas ils sont du FSDBJ non non parce que bu ñu jëlee au plan local dañuy échouer parce qu'au plan local c'est comme si c'est seulement la personne de Cheikh Bambadjé qui compte et que on bu le candidat rek dañu war omettre le fait qu'il y a des possibilités de réussite de nos autres camarades de parti qui sont à leur sort il y a de ces décisions ils le prennent on sacrifie les autres. Mm. on sort des locales Cheikh Bambadjé et Kanda, mais après gagné na les na maire mais nos autres camarades nan les leen traité ñooñu est-ce que jox nañ leen possibilité ñoom aussi ñu mën a nekk ci même xeex bi ñu gëm ñu continuer ko c'était ça l'aspect fondamental bi nga xamee ne moo tax on s'est dit que tey au cas par cas lañ koy traité ce sont des choses qui se passent au niveau local nañu bàyyi suñu camarades yi ñu décider ku nekk fu mu bëgg àndal ak koo bëgg àndal nga ànd ak moom parce que la chose c'est local tu verras des localités où ñii dañuy ñëw Pastef fa fsd ñoo jëm ànd nga dem dans d'autres localités pure ak fsdb et ils ont des possibilités et des chances de réussite dañ leen di bàyyi loolu. bu ñu pour le cas de Saint-Louis Saint-Louis non la def n'est pas en récent hein, parce que Saint-Louis ñun amuñu candidat bu ñu ñëwee Cheikh Bamba Dièye n'est plus maire mais on s'est réuni aussi localement on a appelé nos camarades ñun ñëpp ñu toog. non mais avant ngay ñëw foofu avant ngay ñëw euh, wax nga Cheikh Bamba Dièye ne plus candidat. voilà moom ban état d'esprit la nek bi mu toogee ba xamni ne mënutul nek candidat si ban état d'esprit la nek. bon xam nga nit ko xamé né mom da nga wax ak mom. Boko déggé mo wax rek mën nga natt état d'esprit bi mu néké. peut-être que da koy jël après ak humilité ak dépassement continuer mais fogu ko won parce que ñun ñi sax ci sama walu bop man mi rek togon na ba né bu ñu ñëwee Saint-Louis di comparer Cheikh Bamba Dièye ak un autre candidat c'est parce que Yewwi Askan bi xamul lu bëgg bu démé bu bëgg comparer Cheikh Bamba Dièye ak benen candidat moy que Yewwi Askan Wi ñi ngi ci yenen calcul mais nekkuñu ci calculu dem pour un ticket gagnant. on démé comparer bay comparer candidature Cheikh Bamba Dièye ak kenen ku mëntu woon nekk ci coalition bi fi pour des raisons yi ma cité député ancien maire yaa wax deux fois ministre nekk chef de parti politique je pense que lolu rek pour ces raisons ak expérience bi mu am au niveau de la gestion municipale yoy ku ko bolé waron na mën tax nga mën a jël loolu jébbal ko pour bu fekkee da nga bëgg a gagné au-delà du fait que aussi la population l'attendait loolu ku def sondage wala ku defoon benn introspection ci localité bu mu mëntu ne wala ci cohorte professionnel bu mu mëntu ne di nga rendre compte ne Cheikh Bamba Dièye sa candidature aussi demande la boo xam ne population bi ñu ngi toogoon di ko xaar pour mu ñëw. mais yow mais yéen moo doon génn Cheikh Bamba Dièye lu tax xaarul woon euh, yat bi ka dal lu tax anticiper wul yat bi ka dal d'autant que moom xam na ni. xam na ni en toute xam na ni ki nu tànn yow askan ki nu tànn dafa jege lool Khalifa Sall. waroon na ko waroon na anticiper. non non xam nga booy xam xam nga bu anticiper woon mooy day dem ci manœuvre yi. day dem ci di waxtaan ak ay nit. di kii non mais xam nga xam nga mbir mi nga xamee ne. kon yéen daal politique bu ñun gaa moom dëgg-dëgg bu dee loolu rek ñun xamal ne nekk nekkaguñ ci yooyu. peut-être que loolu nag ak euh, voilà mooy li may wax moom laay tuddee taalibe bi day togg benn instant euh, xalaatam di nga ko ko nangul. mais tu te dis que neko exactement ci bir li nit ñi def la politique politicienne. waaw xam nañu le jeu bu waré am xam nañu ni koy défé parce que ki ñuy tànn avant que ñu koy tànn mais investir na radio yi ak télé yi amul lum ñu waxul. c'était dans le but peut-être de réconforter sa position wala de faire connaître de faire savoir à l'opinion publique nationale et internationale que mom mo fi nek mom lañu buñ ko défé te de liste on a plus de chances de gagner mom loolu la bëggoon dugal ci xélo xélo askan bi peut-être que les leaders au plan national aussi bi tok di décider lolu jàpp na ak peut-être sous-estimé nañu le pouvoir et la puissance même du FSDBJ. on ne sait pas mais que la décision bi mu ñëwee ñun on s'est pas posé de questions. on s'est juste on s'est juste dit que il faut qu'on prenne des décisions rapidement. d'accord mais tout tout nank Hein Tout il nank C'est la. sen bop lañ il ndax ko am Cheikh Bamba Dièye war a gagner nga bayiko fi mu ngi mel ne gis ab gaynde dem wuti la kon candidat bi nga xam ni moo fi nekkal yow askan bi amoo si moom yaakaar. déet man de ba ma ko wanee ginnaaw laa ci pare te pour revenir bi ñu toogee waxtaan ñun on s'est dit que c'est une humiliation c'est une forfaiture. Hmm. parce que mënuñu am candidat bu mel ne Cheikh Bamba Dièye nga weccoo ak candidat bi fi nekk yow askan bi loolu moom mooy suufeel ñu waaye suufeel sa bopp. léegi nag comme pesum kanam pesum kanam a koy faj ñun on a pris nos engagements et nos responsabilités ñu toog waxtaan ak kuréel gi fi nekk comme nii rek ñun démocratie bi candidat yaa ngi fii ñëpp ñu ngi sollicité fii mën nañ faa dem pour lii fii mën nañ faa dem pour lii fii mënuñu fa dem ndax lii fii mënuñu fa dem ndax lii bu ñu tegee yëpp ñu déglu ñëpp pendant plusieurs réunions trois réunions consécutives ci la ñuy soog décider et l' argument bi nga xamee ne moom moo fa génn on s' est dit que fu ñu mëntu dem dañu war a dem pour nit bi nga xamee ne ne jàpp nañ ne am na dayo waaye mën na gagné am na dayo bi c' est parce que il faut que programme am nekk lu ñu lu ñu épouser am dayo bi il faut que mu nekk koo xam ne ni aussi ay intelligence am wala buy wax dinañ mën a natt ci moom xam-xam bëgg dëkk bi ak tal ko waaye fépp fu ñu mëntu dem aussi day nekk loo xam ne li ñuy engagé c'est les locales bi ñu tegee profil yëpp on s'est dit que tey on va soutenir le candidat de notre choix et c'est Mary Teuw Niane donc nous avons ñu aussi. 72 heures avant de policiers. Voilà 48 heures même. avant c'est c'est c'est non 48 heures mm, mm, si 48 heures avant ngeen. ngeen non c'est c'est c'est c'est plus de 48 heures. Quand vous avez négocier on si souffle non non non négocier wuñu mais xam nga waxtaan mooy jël temps et que foog nga jël parce que tey bu fait. na ngay dem Yobu base Ta base bi travaillé suffisamment. Bo sàgganul fi ngay dem kok du lu mën a jëriñoo sa puissance wala sa force bi ngay am surtout en terme d'électorat parce que frustration ci parti xam sanction xam donc on devrait s'assurer que fep c'est par l'argumentaire et puis par la concertation que l'on engager tous les militants et que aujourd'hui une bonne réticence on s'est engagé avec tout le monde et que ñep ñi ngi mouiller leur maillot pour que au moins faire gagner la liste du mouvement maritonien. mais il y a un jeu du chat à la souris c'est thème parce que coow amna ben moment ñu ni est-ce que ñi ba ma jey moo leen est-ce que FSDBJ moo leen yebal ba confusion on en parle on en a parlé les réseaux sociaux hmm. est-ce que mën nga exactement li xew si ñaari fan yoy xam nga xam nga ku bëgg confusion di nga ko gis mais la même logique bi tax un parti comme PASTEF comme PUR comme taxawu nek ci localité lañ fa neus arrangé wu leen ñu bayiko dem ànd ak ñeneen amna na la wa Pastef ak yu ànd ak waa wàllu Sénégal pourtant kenn waxagul amalgame foofu ken waxul jeu de chat de souris wala de chien et de chat taxawu Sénégal. non mais waaw yàlla alhamdulilah. <laughs> parce que ah, non non ancien maire rek yëpp ci bokk yoon xam nga lan la. il faut que non non il faut il faut qu'on soit sérieux rek. Ah, non non dañu déedéet dañu war a sérieux ci logique xam nga lu tax. waaw parti parti politique la ñu. parti politique la ñu. pur dem na élection présidentielle ñun dem nañu élection présidentielle. kon ëppaleetuñu ko dara. sauf que géré waaw waaw waaw mais xam nga xam nga y a de ces de ces de ces militants de pur yoo xam ne aussi yoroon nañu ay mairie dafa dul feeñ rek. am na ay militants wu Pastef yu yoroon ay mairie li ma la bëgg a wax xoola li ma la bëgg wax mooy bi ñu ñëwee ba toog au niveau local bu ñu déglu woon Cheikh Bamba Dièye pour dire vrai mooy du ñu battre campagne pour kenn arrangé yaa ma ko waxal mais c'est ça l'argument principal on s'est dit que bul rek au plan national ngi Askan Wi ko ken signature mo la engagé mais au plan local il y a des réalités réalité yooyu a tay moy tax. mënuñu non mënuñu liggéey pour 5 ans. dit déedéet mënuñu liggéey pour cinq ans. dégg nga fi waxé. Moy pour 5 ans bu ñu pour cinq ans tok rek la base politique parce que bu fekkee ne tamit du Bamba affaire moo ñor de man y jógul pour campagne, Askan Wi jóguma pour Askan Wi loolu dafa leer sama yeneen i camarades même chose moo leen dal parce que ce sont des frustrations ñooñu bu leen ne woon jóg leen ànd ak diw sax xam na ne ko parce que ñun ñoo ñëkk ñëw taxaw. ñun ah, taxaw ah donc c'est pour exister dem Marito. non non c'est pas pour exister. Ah. xam nga exister boo wax mel dafa am on se dit que dañu am partition bu élection locale la man ma am sañ-sañ sama moroom am sañ-sañ ñu tok ñu waxtaan ñun ñëpp né nañu jappalé diw parce que tay xam nga en le faisant c'est quoi. ah ça vous l'avez fait au nom du parti ou vous l'avez fait individuellement. mais c'est man ko mu gis loo may gis FSD/BJ. non Bamba n'était pas d'accord donc. fo ma gisee looy gis FSD/BJ. Bamba Bamba n'était pas d'accord. ah kon kon lu ñuy def lu ñuy def ci Marito non je ne sais pas si je Bamba d'accord. parce que c'est comme si 48 heures yooyu moom deful un point de presse deful benn sortie si les médias pour wax ni moom il est en phase ou il n'est pas en phase avec vous après nous ñu que ni ah moom De, démentir am na ban côté la jógee. on ne sait pas démentir amul précision moo am. parce que dès l'instant que nous nous disons ñu ci professeur Marito Teuw et je je vous dis que c'est au plan local xam nga localement bi daf ci am solo. il a validé donc. déedéet au plan local ñun dañu jël xam nga mooy mooy mooy mooy boo xoolee sama raisonnement je voulais juste dire que parti bu ci nekk te nekk ci biir coalition Yewwi Askan Wi bëri na ci gox gox yu muy dem. waaw dafa dafa ubbeeku. déedéet dafa ubbeeku dama koy tëj parce que déedéet moo koy dugal ba ci Saint-Louis dama koy dugal mu nekk ne tey parti politique la mu xool ku ko neex localement mu ànd ak moom. Hmm. ñun suñu ñi ñu bokkal yépp ci Yewwi Askan Wi def nañ ko dans plusieurs localités problème amul vous jibul dego dara à Saint-Louis aussi nous sommes localement bu ñu ñëwee on n'a pas de candidat au niveau local dañu wara a am candidat ñu tok ñu waxtaan si ñu jël suñu décision jappelé candidat de notre choix le professeur Mary ah c'est juste ça exister parce que du du du luñ ci luñ am c'est pas le parti tay do dégg ci élection yi mukk ñu wax ci Bamba wala ñu wax ci fsd on parle là plus du parti de l'espoir et du progrès du professeur Marito Ignan et dans le département du docteur, du, du docteur Ahmadou avec, avec responsables de, FSDB. Non, c'est pas l'existence. Il faut plutôt saluer cette participation, l'engagement et l'envie l'envie de participer à l'activité politique locale. Vous mhm. cinq prochaines années qui est du leen vous ci c'est ah, ça ah, ah, a dɔw fana ni dégg maa mɔgɔ min b'a ko ne bah, révisé parce qu'on dit Assemblée nationale. Il y a les législatives en juin déjà. Il y a les législatives. Il y a les législatives. Non, non, non. C'est une base politique boo xamee ne xam nga man sama philosophie dafa nekk ci. Hmm. on a travaillé 5 ans ci loolu laa bëggoon ou hmm. plus di di remobiliser di wax ak ay nit. et puis une base politique doo ko bàyyi mu effrité wu. doo ko bàyyi aussi mu am liberté boobu mu am trop hmm. ba muy nga xol sa ay militants tay nga gis ñii xaaj bële ci Benno Bokk yakar xaaj bële nga mën leen retrouver dans Yewwi Askan Wi benen xaaj bi nga gis leen ci walu Sénégal benen parti parti nga gis leen ci les Verts wala même la candidature de Moussa Diop c'est bien mais boko ko bàyyee bu sagane suba di nga leen soxla do xam fo leen di fekk ndax nit kat la muy def ba duggal bopam ci fenn da nga waxuma lu mel noonu moko fay génne waaye lu ëpp loolu di nga fa def lu lu ko ëpp fuuf di nga ko fa def te du tax sax mu jóge fa ndax da nga bàyyeeku bàyyeeku moo baaxul ci ay échéance électorale donc ne serait-ce pour cette logique parti politique bu mëntu nekk dafa war di sàkku di engagé wu bu échéance électorale amee mu participer ci activement donc bu ñu xoolee yooyu rek daf ñu encouragé à ce que ñun tey ci politique nous avons a au niveau local Nous avons activité politique et l'activité politique c'est participer à la campagne électorale c'est participer au vote c'est mobiliser nos militants et puis pour cela il faut que nga def derrière un candidat. maintenant vous choisir le camp du professeur je l'ai dit tantôt et puis pour le professeur euh, nous avons lu baax boo def def ko rek ndax ëllëg doo ma wax li programme parce que xamul non non non ma ngi ñëw xam nga dama ne lu baax bokay def def ko rek ndax xamoo ëllëg kañ lay fay. Hmm. dans cette situation en 2014 pourtant le professeur Marito ay nitam yu bari ñëw nañu soutenir suñu suñu candidature loolu nit ñi xamuñu ko. ah bon waaw. te moom il était il était du côté du pouvoir. mais ay nitam laa la wax yu bari

parce que au delà de la discipline de parti nous xam ko ñun ñu ko respecter dans un parti sérieux nit ñi toog waxante dëgg te bu fekkee ne dëgg dafa am même nit ki loo ko jiital jiital di nga ne ah ma wax na ci hmm. mais pour dire que dama ne woon loolu lu la woon ba koy def ñun situation on s'est rappelé de cela on a dit que il faut que ñu mën parce que nous avons xam nga da nga ay 48 heures avant. Hmm. on a eu des bribes ci li nga ne programme nek lan la fas pour dëkk bi. ñu jëlaat ko en considération mais aussi le professeur ku ko xam xam na ne xëyul rek ne cëpp ci dëkk bi yàgg na fi nek professeur agrégé de classe exceptionnelle. boo koy xam doo ko xam nii rek et puis même dans la gestion du maire Cheikh Bamba le professeur Marito Teuw Niane joué na ci lu bëri parce que compagnonnage bu yàgg bu ñu la tek ay programme yu bari université bi investiru dans les activités de la ville dans les activités scientifiques et de recherche de la ville donc yooyu yëpp dafa indi loo xamee ne day renouer waat avec le passé bu yooyu ñëwee ñu convoqué ko ñu nekk ay nit rek bu ñu koy jàppale war nañ ko mën a au delà du fait qu'il a les chances d'être élu loolu c'est c'est c'est ce sont des choses qui sont sorties là bu ñu koy jàppale nañ ko jàpp parce que war na mën a gagner benn ñii c'est le programme pour moi man c'est l'engagement politique qui m'intéresse mu wóor ma la personne bi nga xam di dinañ ko séx ak mom nitu xam-xam la. nitu xam-xam la parce que timit dëkk bi tay euh boko bëggé yor défar ko je pense que bo amé xam-xam am nga au moins 70 de chance pour nga réussir ko. Eh, mais yow yaa ngi anticiper ah, ki la wax ku la wax moom il a la chance d'être non non il a la chance d'être d'être élu. il sera il sera même il, non il sera même le prochain maire pour être voilà bref. waaw léegi bi ngeen toogee yéen seen délégation bi mën naa xam kana kana kan demoon sax exactement. waaw man maa demoon Ablaye Ndiaye et Vieux Guèye. Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye DC directeur de cabinet du maire et Vieux Guèye. notre chargé de communication aussi. yéen yéen a demoon toog waaw ñoo demoon toog waaw amaan na yeneen daje mais. boobu moom bi ngeen toogee <laughs> est-ce que da ngeen ko da ngeen ko defal ay proposition ne que ñun ñëw nañu am na lu ñu indaale bagages yaa ngi nii. non non non non ah, ñun lan nga ñuy jox. ñun ñun xam naa ni yéen ñu mën a ah, négocier ngeen. au fait au fait la négociation tourné wul ci autour de luñ fi jëlé ak yow non non non. au contraire on a on a vu une personne non on a vu une personne ñun dem ben ben bëgg-bëgg ne war nañu ak et dans la discussion aussi on lui a dit que. Nous FSCBJ localement on a pris nos responsabilités de venir vous appuyer. en dehors de votre leader. pour être clair non non parce que le leader c'est le leader national. d'accord c'est le leader national mais localement nous warul nous, def nous, Nous def. vous avez des nous, non non non non propositions parce que nous, autour notre activité notre activité politique wala moom <laughs> yéen la yéen yéen yéen a jël initiative. non yow non yow rek mu bëgg a dugal. <laughs> non dama lay laaj non non. Bamba ne veut pas répondre à cette question. non non non xam nga loolu loolu au fait au fait euh, boo koy xool. dafa am ku nekk si diggante bi joué. waaw tout le temps tout le temps dina am dina am dina am koo xam ne ni mooy nekk au milieu. waaw peut-être que voilà annoncé mais pour dire vrai je l'ai dit dans dans dans une radio que man j'ai eu tout tout le temps euh, l'inquiétude ndax toog naa ma ne Cheikh Bamba mu ne ma naam ma ne ko euh, man de lii xew Dakar fekkewu ma fa fekkuma fa ay jaaxal na ma mu ne ma ndax lan ma ne ko ju dama gis ne ni lu waroon gaaw moo yéex mu ne ma loo bëgg a wax foofu ma ne ko lii gaaw li waroon gaaw bu demee ba yéex c'est parce que li waroon nekk du nekk li warul woon nekk mooy nekk. nan nga bëgg wax foofu. bi ma ko bëggee wax foofu c'était pour lui dire que il fallait que ñu trouver un plan B ou un plan C. amu leen ko woon ah mais. li ma la wax wax naa la ko wax naa la ko moom mosul dem ci xelam. ba ma ko waxee tamit. dafa dalal sama xel parce que que maam était dans l'attentisme quoi dafa toog di xaar rek. non non non mais dafa waroon toog di xaar pour moom. mais voilà pour ñun ñi nga xamee ne nag sa waay ñun ñun ñun ñun dañuy xalaat rek. suñu suñu suñu xel day xalaat dem lu nekk dañuy ñaaw njort léeg-léeg. kon yéen da ngeen fi bu après. li ngeen def non non non mais FIPU am parce que expliquez naa la parce que. li xew du coup d'état xam nga li non non c'est après on a attendu le verdict on a attendu que lépp génn leer bi mu génnee ba l'air, choisir uñ candidat ci la ñu convoqué ay rencontre en présentiel à Saint-Louis visioconférence pour la diaspora et le territoire national ñu waxtaan ci sérieusement yenn décision yi ñu ngi ko acté au niveau national bi ñu paree nag national ñun lañ leen xamal ci visioconférence bi ne leen non au niveau national li ngeen jàpp yëpp baax na. Hmm. c'était que Bamba mi ngi dans Yewwi Askan Wi réaffirmé ko ndax il est signataire démissionné gul bu démissionné sunu camarade yëpp dañuy obligé génn c'était un fait beneen bi nga xamante ne mënul mënuñu ko woon def mooy candidature Bamba jàllul ñu ñu ñu engagé ñëpp ci défaite boobu mënul ne ci la ñu toog nag ñu waxtaanaat et à Saint-Louis on s'est dit que nous, si nous fi dinañu tok waxtaan xol fan lañu mën a ñu campagne parce que duñu suñu base ak li ñu jot a liggéey ak mobiliser ko ñu bàyyi leen rii rek suba buñ ne ma Bamba nous fu ñu war a nous man leen non dañuy toog seetaan ma ko non non loolu ak militantisme ak politique il faut que ñu am soutenir de là est parti l'idée de discuter de faire des rencontres jusqu'à ce que voilà am ay appel mais wala yéen woote ngeen. non ñun ñëpp woo nañ ñu. man waxuma woote nañ de. ñëpp woo nañ ñu. ñun ñëpp woo nañ ñu. non non non ñun ñëpp woo nañ ñu laa wax ma ngi koy wax ci radio bi ñun ñëpp woo nañ ñu. mais en dehors de Mary est-ce que lu tax yéen tentewu leen les autres même l'actuel maire est-ce que tentewu leen dogal. non woo ñu mooy tax ñëpp woo nañ ñu. waaw ñëpp woo nañ ñu mais wuy jiwuñu ñëpp. Hmm. ñun moom ñëpp woo nañ ñu leer na ñun ñëpp woon nañ ñu mais wuy ji wuñ ñëpp ñun ñoo choisir dem wuyu ji la professeur Mary Teuw Niane kon ñoom foofu moom moo mais ñun ñëpp woon nañu ñu ñu dem choisir wuy ji la professeur Mary Teuw defar nañu liste yi est-ce que vous nga me brièvement wax ma position CDC que ce soit majoritaire que ce soit proportionnel est-ce que vous êtes dans bonne place parce que l'enjeu c'est ça aussi en politique c'est ça. non non non non que lañ vous lañ parce que gis non l'enjeu c'est ça. non non non non l'enjeu c'est pas ça surtout bi ñuy dem ci coalition bi parce que xam nga bi dem ci professeur Marito, discussion bi yàggul. discussion bi yàggul. jëlul temps. oui le au moins au contraire moom moo am sax générosité di def ay propositions non non non il faut que je vous donne ça ça ça ça lépp lu mu ci wax ñun on a été d' accord ñun amuñu woon benn benn benn. non pas demandeur quoi. non non ñun nekkuñu woon ci philosophie lii la ñuy am ak lee au contraire ci xelam bu rafet am na yum ñu jox sax ñun ñoo ne ko boo gisee koo xam ne ne bëgg ko joxaat dindi ko nga jox ko ko et c' est le cas c' est le cas pour pour pour pour le docteur Dia PS ñëwagul woon. Nous woon ñun ñoo conseil départemental. pour diriger la liste. ñun FSDBJ kuñ ci defoon baax na. kuñ ci mais Bamba ci résolution yi amul plan national mooy mënul bokk ci élection. c'était une résolution mënul dugg ci liste mënul bokk ci élection élection yi da koy saraxal parce que mënutul ñëw ñu ñu ñu def nekk defuñu candidat muy wut fu muy wala muy abi ay récépissé yooyu loolu dañ ko exclure. na localement nit ñi noonu la ñuy décider dem donc ñun ñoo doon xool ku ñu neex donte ablaay la donte vieux la donte man la wala keneen ak keneen ku ñu jàpp ne moo waroon nekk tête de liste ñu jox ko ko. bi ñu yëgee ne docteur ja day ñëw aussi noonu la ñu taxawee ñu ne ko sa yéene rafet na mais docteur ja fa mu jóge conseil départemental la fa doon wut ñu dindi ko jox ko keneen. ñu xañ ko ko ñu xañ ko ko. kookee noonu bu ñëwee ci fu mel nii te ñun gañe rek intéressé ñu jëlal poste boobu nga jox ko ko. xam nga kuy wut ay poste ak ay do do do do demee ci logique yooyu ñun manam daal dañu nek euh, à part daal parti politique bu à part lañ bu xaw xaw a xaw dayo war d'accord légui dem ngeen and ngeen ak euh, mouvance Marito Niane ak parti bi mu nek wala disons liggéey and euh, liggéey ndar and ak professeur Marito ak professeur Marito Niane. Mhm. dem ngeen fofu damay damay damay wax ci avenir. ni ngeen ñëwee jàppale seen waxtaan. Mhm. est-ce que yaakaaroon ni Bamba Dièye mi ngi xaar ci élection législative yi professeur c'est possible. non xaarul xaarul dara. parce que non c'est possible. non non xaarul dara xamul tax Bamba mi ngi def Bamba politicien Bamba Bamba Bamba calcul. Pamba c'est le genre de personne bon xamee non mais calcul moo leen xaj. non non voilà non non bah, bah, ñàkk bah. calcul la bu doon calculer xam na fu mu non dafa toogoon di xaar yaakaar Khalifa Sall mu jàppale ko. Khalifa Sall jàppale ko déedéet déedéet ku ñu war a jàppale xam nga calcul tey politique ki nga xamee ne day def calcul. du xaar du du am évidence. si si si entente bi. du am seen accompagnement bi. non non non xaaruñ si dara parce que xam nga lu tax on s'est juste limité au local. au local. Ah, seen contrat bi local non du contrat maanaam li ñuy def nii ñun dañu jóg pour investir ci local yi dès l'instant que la mouvance Dial avec ses candidats et autres yep on se dit que mais le professeur. mi dans mi xam nga xam-xam dans n'est-ce pas. mais vous allez gérer ensemble. Oui mais gérer ensemble ne veut pas dire que nous avons am obligation à ay élections législatives ñu une obligation da ngay il est libre nous sommes libres. professeur même bu fekkee ne mi ngi vous APR. Mhm. xam nga ni bu ñu génnee ci élection yii. waaw une nekkam APR dootul dootul déet ci lay gën a neex. ah xanaa njiitu réew mi jox ko joxaat ko mais day lu wute ak li mu amoon. ku gañe rek la ñuy wër te day gañe bu gañe kañ ay mbiram day gën a neex. ah bu neexee kon yéen da ngeen di mujjee dem APR. déedéet Bamba Dièye dafa dafay ubbiwaat yoon. déedéet déedéet Bamba Dièye bu doon dem APR du xaar lii Bamba Dièye ba mu bàyyee ba léegi jot na émissaire bu nekk pour mu demaat ci biir mu wuyu ji Macky jotaat na ay appel yu bari ay woote yu bari pour delloo ko ci Macky. lu tax wax mais parce que gëmatu ko il a la page il a la page te bu ñu fàttewul Bamba daaxuñu ko moom dafa toog am lu fi jàll mu xam ne ni lii ànd bi du ànd bu baax mu démissionné kooku dafa démissionné de son poste de ministre. loolu mi ngi soog a am ci l'histoire politique Sénégal xam na ne nomba tànk neexul tekkee noonu nit ki nga nekk maire mu indi gorom ne da koy day day xëccoo ak yow. mais même bu ko gañe woon sax daf na day bàyyi yàllaa def ñu gañe ko mu bàyyi mais même bu fekkoon ne ne dafa dafa Bamba dafa gañe waatoon en 2014. day bàyyi day bàyyi par principe parce que gëmul woon ne nit war na mën a di ànd ak moom ñuy liggéey yow mu lay jàppale nekk sa biir gouvernement yéen ngeen di liggéey liggéey bu rafet ndeke yow sa yéene yëpp moo nekk ci dindi ko ca fa mu toog néewal ko doole donc voilà.

wax nga wax nañu lu bari ci FSDBJ wax nañu lu bari ci Bamba Dièye ak ñàkk teewam ci élection yi mu nekk nag une première dans l'histoire mhm. Saint-Louis loolu moom foog nga nangu ko aussi ndax généralement maire yi fi daan doon nekk ñëpp dañuy représenté wu si ñun li ñu fekkee mhm. tey jii mairie Ndar boo ko doon xayma li fi ki fi ne li mu fi jot a def juróom-ñaari at ban xayma ngay ngay def tey bon ce sera assez difficile parce que dafa que euh, gestion xamé euh, déjà en campagne électorale waxon nañu que je dama koy dem wuti ji bu ma dem ci sama goro mu jox indi donc vais mi logique ba mu si goro wala président. bon président goro donc tay bu président de la république président alors tay bu la décentralisation est koy consacré dañu bëggoon noppal état transférer les responsabilités et l'administration au niveau local c'était aussi pour permettre que localement les ressources et les potentialités maire bu fa engranger de sorte que le développement sera à la base les décisions aussi sont prises à la base base boobu noonu dafa am solo parce que tey bu fekkee da nga bàyyiwaat base boobu demaat ci l' état central mooy que tu consacres même l' échec de la décentralisation et malheureusement avec ces gestions et à travers leur communication politique politicienne bu ñuy wax bu ngeen ñu falaatee dañuy dem jëliwaat indi c' est ça l' échec et que dans la communication foog naa ne war nañu ko sax éviter di wax wala war nañu ko di rus di wax donc boobu mooy un point beneen bi mooy on verra dans quel secteur la réussite am boo ko doon wër ci ndar doo ko gis Hmm. boko ko du ko et puis c'est c'est assez malheureux que tu ñu tok ñoom ñuy bako place Faidherbe ba ko amone place bi lañ ko ku at nga pare ci at dara nga jël ñaar ci muy ans dara. la fi def dara. mais bako tali mais euh, xam nga xam nga programme municipal mais mais programme municipal loolu c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la commune loolu c'est l'État. C'est quoi alors. C'est l'État. ce sont des projets comme lu mel ne ay Promoville lu mel ne ay projet ay PACASEN lu mel projet des dix villes lu mel le plan de développement touristique Yoy, ñoom ñooy projet yi nga xam ne ñoo nekk déroulé wu. ni muy amee ci Saint-Louis non la amé ci Louga non la amé ci Kaolack non la amé ci Fatik, fenen ak fenen, parce que ce sont des projets de l'État. même lampe solaire yi ngay gis c'est l'ANER pas un projet de la commune. Tay, li ñu xaar non non c'est c'est c'est c'est c'est c'est pas la commune Tay, un maire on s'attend à ce que mu mën am un budget avec la coopération décentralisée à travers le partenariat public privé et NUE il y a cycle de financement mu mën exploiter ba mën ci mais si vous dem des ci état rek toog xaar état jox la nga ne waa man ma jox jox ma parce que mais l'équité du territorial et le développement territorial bi prône au niveau ministériel donc war nañ ko mën parce que équité territoriale c'est pas ça et boo à Saint-Louis c'est pas équité territoriale moy nga bàyyi ay quartiers yu mel Pikine ñu ta am ndox fess del égo yi jàllul nga dem au même moment à Ndiolofène wala à Balakos parce qu'il y a des adjoints au maire et le maire nga def pavage intégral presque sen sen artères yi defar tali yi daal di defar assainissement daal di ñëw taxaw foog ne ne loolu moom mooy équité sociale. kon da nga bëgg a discrimination am na discrimination y en a à Saint-Louis et ce sont dans des projets de l'État encore une fois su fekkee ne ne tey mën nañu toog rek valablement ñu ne projet bii nii. nguur moo ko def commune bi mën na koo jël capitaliser ko donc xam naa ne kenn gënul liggéey meeru Diass hmm. ndax meeru Diass aéroport international ma nga fa. Hmm. bu dee loolu rek logique boobu. ah waaw fii fii déedéet fii dama ko jégalagum parce que logique bi ñuy demee ci bilan ndax aéroport yu pare xam nga tey bu ñu jëlee tali yooyu di ko wax jël lu mel na ne ay assainissement yenn yi naan ville yi gas nañu ko fu ne état di ko def boo ko jëlee boo ko retrouver ci benn maire bu boobaa kon jàpp naa ne. damay extrapoler tuuti que mairie ya nekk Diass liggéey na maire ba nekk jam ñaajo ndax au moins am na fa arena hmm. am na fa centre de conférence Abdou Diouf kon xanaa kooku tamit liggéey na de la même manière kon xanaa fépp fu terre jaar maire yooyu liggéey nañ xanaa dañuy jël terre yeeg yooyu dugal ko ñoom ci seen ay bilan ka nekk jam ñaajo jël arena wa euh, conférence euh, euh, centre de conférence Abdou Diouf dugal ci bilan wam avons arrêté parce que xam nga li état def état def non non non c'est pas c'est pas na neex ci plateau bi. sax nga ni ma ben affaire sax mu def mais man gisuma ko nañu ko wax rek. Nous ko on attend de la commune que li nga xamne moy insalubrité le cadre de vie que lu reluisant lu attractif parce que lolu nous émission mission première. li nga ah li nga xamee ne ne mooy encombrement désencombrement la gestion de l'espace public les occupations du domaine ñu mën ko résoudre li nga xamee ne mooy l' public ñu mën ko résoudre li nga xamee ne ne moom les lieux de culte les cimetières et autres ñu mën ko defar li nga xamee ne moom mooy l' éducation ñu sentir ne ne au moins y' a pas d'abri provisoire au moins li nga xamee ne les postes de santé ñu sentir ne que au moins plateau bi mi ngi tane wala réhabilitation mais xaaruñu ci maire mu toog naan ñu damay dem jëli ci nguur di indi parce que loolu encore une fois man je me dis que wax ko rek mooy wax échec maire bi fi nekk actuellement parce que dañuy xaar mu indil ñu ay projets yoo xamee ne dañ koy xalaat fii le financement ak lépp lu mëntu ne mu nekk des choses yu nga xamee ne ne euh, la ressource day nek lu propre c'est quelque chose d'endogène hmm. parce que bu fekkee dañ ko yóbbuwaat jébal ko état donc tu donnes la possibilité à tous les maires ñu demaat wuti ci état boba état se fatigue te kon décentralisation amul ben njëriñ. wa légui mom dafa fi dara si projet état bi la yakar hmm. mi ngi laajaat nekkat maire bu Ndar dans deux ans ñu dem élection présidentielle président bi si nek normalement warul bokati hmm. wa légui mom bu koku demee mom fu muy ay ressources. pour tabax dëkk bi mooy du liggéey mooy la mu indi du du am ta amul xalaat ak capacité créer wala développer susciter ay ay ressources au plan local bu boobaa day nekk maire boo xam ne du amati benn argument bu mu la jox et c'est ça nag moo tax ñu xool bi ñuy xoolee ñu ne dëkk bi ku am xam-xam daf ci baax ki nga xamee ne ne xelam da koy may muy lijjanti ak di régler ak di xool li nga xamee ne mooy dynamique local bi am mu positionner positionné à ce que permettre au moins le développement que cela soit au niveau au plan local mais mu nekk endogène parce que aussi les théories de développement économique foofu la tourner malheureusement. mais non am l'actuel maire de Saint-Louis. mais comparé à au professeur marito c'est c'est c'est c'est c'est c'est diamétral c'est incomparable. c'est incomparable. Donc le moment tard, nous devons choix. Wow, c'est un choix là. Bien que nous ne sommes pas dans Benno aussi, hein. Benno, c'est, c'est, c'est, c'est has been, c'est une page tournée bennoo fu ñu si mëntu woon dem mënul ne man mi sax rek du dem bennoo. parce que professeur Mary Teuw mo moom di andal mhm. nous sommes à deux mois des élections ban programme le proposer waat dal bon je sais qu'il a il est il est ambitieux et que tay ci tey ci tay programme bi tëjoogul parce que au moins pour une fois je l'ai dit que ñu tok nit ñi dañ dan teju ak seen ay nit xalaat ci ben programme paré jébbal ko population bi. ki ngay romb tey bu fekkee ne dem nga ci benn quartier di nga fa dégg lu la intéressé peut-être nga koy noté après mais doo ko mën a dugal ci programme parce que tiré nga ko ba pare da nga ko koy jox rek peut-être di nga jël xalaat bi pour ëllëg. mais avec cette démarche du professeur dafay indi que le programme doit être participatif et que man tey ku jógee ci émission bi ñëw ca chambre de de commerce di nga fekk atelier bu mag buy déroulé wu c'est parce que moom dina joxe en premier lieu li mu xalaat. li mu bëgg mais dina ubbeeku tamit pour askan bi jox ko ñoom aussi seen ay xalaat mu jël ko mooñaale ko ci li nga xam ne mooy programme bu mujj bi mu war a présenter askan bi. ah waaw kon yéen euh, ay remplaçant ngeen indiw leen dara ci équipe bi. ñan si. ñun ñan. yéen waa FSD/BJ comme ah. rejoindre ngén ko xanaa au moins daa proposer quelque chose. par non on a proposé on a proposé. jox ma ci ben par exemple. ñun li ñuy proposer mais ce sont des choses yo xamé né yi dafa nek programme yo xamé dañ ko amone pour dëkk bi concrètement lan ngén proposer non xam nga concrètement tay bu fekkee dama. ciy dem non non damay emboîter le pas ak lii xew léegi ndax lii xew léegi. travaux yi ñi ngi déroulé wu. xam nga bu dee man lu lu propre à man ma toog xalaat ko je me dis que pour la ville il faut que nous mën résoudre le plan de circulation c'est essentiel la mobilité urbaine. Hmm. parce que Saint-Louis est étouffé donc il faut que nous ayons au moins des solutions qui xam permettre avec un très bon plan de circulation mobilité bi fluide. Hmm. il faut que aussi nous arriver à un moment donné où sur le plan de de de euh, de la circulation nous mën définir des aires de stationnement c'est faisable aménager les parking mais aussi permettre à ce que li nga xamé ne mom moy euh pourquoi politiciens yi rek la ñuy wax circulation aménagement des parkings on ne parle pas de l'économie locale. dafa mel non maa ngi ñëw ñoom seen xel nekkul dara ci sama sama aménager parking pour qui non yow mëna a xam nga tay xam nga tay bo xolé embouteillage bi am avant avant l'île. c'est parce que la circulation n'est pas fluide. il faut juste créer une pont c'est tout c'est très facile. mais après ñu ay bayre ñu jox ko. non non mais ah. loolu mooy plan de circulation parce que tay mën nga baña a am benen pont mais que la le plan de la la fluidité du transport suivre. bon loolu moom mooy il faut que définir des sens. de marché là il faut circuler il faut définir des sens de circulation. pourquoi yéen bi nga fi nekkee 5 ans vous n'avez pas pensé à ça. ah c'est pas que vous pensez ci mais avenue Général Dogol nu melni ni ko mel. seen jamono gënoon na neex. non mais foofu léegi ngay léegi nga gis encombrement yi taxaw lu yàgg mais jamono jooju amul woon. wax léegi oto yi dafa gën a yokk ñi ñi gën a yokk. ku wax loolu man kay yokkuma oto man kay déedéet man waxaguma oto bu yokk. <laughs> waxuma oto bu yokk. <laughs> Ah, léegi euh, Bamba bu jeexal émission bi. rejoindre ngeen Marie Taw Niane wax naa ko léegi vous êtes ensemble. Mhm. yéen ñi ngi préparer élection yi. Mhm. au soir de la victoire bu fekkee ni yàlla dogal na yéen a gagné parce que képp ku mënti toog fii aussi da dañuy wax ni am nga yaakaar gagné du yéen rek ak yeneen kuréel yi nga xam ne daanu ñëw fii. am ngeen yaakaar bu ngeen yaakaaree bis bu ngeen gañoon par exemple. Mhm. lan ngeen di jëkk sumb si ndaal. bon loolu on laissera juste le soin au au maire et au bureau municipal parce que tey bu fekkee fal nañu li ci jiitu mooy les instances délibérantes dañuy defaru et que liggéey bu nit mënti sumb ak bu mu xalaat ci dëkk bi jàpp naa ne du mën a jéggi li nga xamee ne moom mooy le bureau municipal ñuy toog définir lan mooy seen ay axe prioritaire. Mm-hmm. ñu mën ko jéppal les services techniques pour ñu mën a doxal ci loolu. mais man jàpp naa ne euh, nit ku nekk da nga am sa sensibilité et puis man tey su ma koy xool sama sensibilité dama ko doon yóbbu ci li nga xamee ne moom mooy faju bi njàng mi ak l'environnement man ñett point yooyu essentiellement dañ ma intéressé dañ ma ñor. Peut-être que le maire peut avoir d'autres visions, mais a aussi dans le programme, il y a le reboisement intégral des, des, des, des, quartiers de la ville avec des arbres fruitiers, mouarsak, cocotiers, parce que nous avons aussi Saint-Louis, qui est bon amon. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui ça recoupe avec l'environnement. la mangrove, des parcours, peut-être des sites euh, agro agroécologique mais ce sont des choses yo xamné ni je pense que mi ngi ci programme bi bu ko moñé dal défar ko ba mu baax ba digeste su ma fi ñëwaatoon nga tok ma dima wax xamna naa ne la wax programme bo xamné c'est un programme comme niñ ñu koy waxee ambitieux réaliste mais aussi réalisable. mais yow li nga wax ni c'est pour juste vendre. Euh, la destination Saint-Louis, hein, les mangroves, euh, cocotier, c'est pour vendre, c'est pour vendre la destination Saint-Louis. Mais, mais, mais c'est économique. Mais, le panier de la ménagère, on n'en parle pas, l'emploi des jeunes, on n'en parle pas. Mais dis-moi c'est un programme, wala yow Déjà déjà euh, c'est touristique, qui parle de tourisme parle aussi d'emploi créé qui parle de tourisme aussi parle du panier de la ménagère parce que s'il y a des activités autour des activités connexes mu am des des sources de revenus c'est le pouvoir d'achat aussi de la du ménage qui moo ci le poumon économique de Saint-Louis c'est la pêche est-ce que am ngeen un programme. technique pour bi. y en a y en a des des des des des plaidoyers déjà pour les pour les licences de pêche taxawu mool yi la les réhabilitations des quais de pêche gis naa ko si lu mel ne ne aussi des des centres de transformation et de conservation des produits halieutiques jàpp naa ne lu essentiel la donc gis naa ko ci et et tant d'autres ba ma fay jërëjëf mbokk yi loolu la leen euh, banlieue FM indiloon tey si émission bi nu tuddee euh, la grande table euh, la grande table doon am mbégte di dalal kii di Bamba fay bokk si FSDBJ wala bokk sax si and liggéey ndar ak professeur Mary Teuw Niane ñu war a jëm si jongante yi euh, di dëkkmal maa ngi remercier bu baax a baax technicien bi nekkoon euh, fële si gannaaw junior di nuyu bu baax a baax doyen Daouda Guissé ak équipe bi nekk fii jaajëf Bamba merci beaucoup merci beaucoup